sant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 bokki jullit yi mbokki taaliba yi gannaaw bi ñu santee suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di sant sunu yaakaari teeg ëllëg Serigne Touba radiyallahu anhu di ñaanal Serigne Mountakha mi dib xalifaam yàlla yàggal ko fii lool te wéral ko ak njabootu Serigne Touba gépp di siyaare bu baax suñu buntu ci Serigne Touba Serigne Cheikh Anta Mbacké moom Serigne Modou Rokhaya moom suñu mor ma woon moom borom gaawan waaye di nuyu bu baax sëriñ Fallou Gala Sylla sunu jëwriñ ci bërëb bi di siyaare bu baax a baax itam euh, sëriñ Mor Ayib Thiam mi ñu àndal ci wàllu xarala gi ñu nekk nag ci wàccaayu bis bu tedd boobu ñu dëgmal muy bisu màggalu tuba di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ñu ay jotaay yu am solo yu ci waajal tuddee ko fukki kàngam ak juróom-ñett jëm ci jëm ci bis bu tedd ba maanaam 18 safar 18 kàngam bis bu yàlla sàkk ñu am ñunu dalal ñu waxtaan ak ñoom jëm ca màggal ga tey jii nag ñu dalal fii waa kër sëriñ Balla Faly Dieng sëriñ Balla Faly doonoon kenn doonoon kenn ci tànneefi sëñ Tuubaa doonoon boroomu cër ci moom doon itam boroomu jagle ci moom jagle nga xam naa dana gën a leer ci kanam incha allah ci diggante ak sëñ Touba ci bis bu tedd bi ñu dëgmal balaa loolu ñu ngi ziare bu baax Serigne Mourtada Dieng mi dib xalifaam ak njabootu suñu Balla Fally Dieng gépp atam ñu ngi ziare bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo teew ci jotaay bi di ak njabootam di sëñ Abibu Laahi Dieng sëñ Cheikh Abdou Dieng ak sëñ Mouhamadou Lamine Dieng waaye ku ne xam ne ñu ngi ànd ak jotaay bi ak sëriñ Abdoulahi Thiaw ak sëriñ Modou la ñu fas yéene ànd ak ñoom ci jotaay bu tedd bi fas ne waxtaanal bu baax sëriñ Balla Fally ak màggal gi waaye balaa loolu faaw ñu def li ñuy wax euh, taarixal sëriñ Balla maanaam jii ma xam kan mooy sëriñ Balla Fally Dieng nasabu man askanam ak itam lu jiit mu ñëw sëñ Tuubaa ci li mu nekkoon doon ci yëngu waaye li jiit rek mooy ñu xam ne kan mooy sëñ Balla Fall ci ay waajur ak fu mu jaar ba ñëw ci sëñ Touba kon ci gàttal rek dañuy daan foofu suñ kàddu jox sëriñ Abdoulahi caw mu nuyoo bu pare ñu jox sëriñ Modou mu nuyoo ñu doog a tàbbi ci biir waxtaan yi kon sëriñ Abdoulahi bismillah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخير خديمه وأمته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولتكمل عقدي وعلمي وسعي وارفع اليوم كلها يا معيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waaleykum salaam mbokki jullit yi mbokki bi yépp ñoo ngi leen di nuyu mm-hmm. di jiital ci nuyoo bi al xalifatul am di tariqatil muridiya cheikh mohamadul murtada cheikh mm-hmm. mohamadul muntaqa mm-hmm. di ñaan suñu borom tabaaraka taala dolli ko ak wér te dolli ko yàggal di nuyu bu baax tey ziare itam sunu xalifa xalifa cheikh bala fali jeng cheikh mohamadul Dieng di ñaan suñ borom tabaaraka taala dolli ko ak wér te dolli ko kàttan te dolli ko fee yàggal di ziara mboolem njabootam gépp hmm. di ko tàmbalee ci njaboot gi nga xam ne ñoo fi teew muy ku mel ne Cheikh Mouhamadul Amin di doomam hmm. ak Cheikh Abibulahi Dieng ak Cheikh Abdou Dieng hmm. di ziara bu baax suñu mbokk mi suñu xat bi ñu jàkkaar lool muy Cheikh Mouhamadou Silla Ndiagne di ko ziara bu baax di siyaare suñ tamsiir mi ñu séqal jotaay bi ak Baye Fallou di siyaare mbooleem ñi dégg kàddu gi ñëpp di delluwaat di ñaanal itam suñu sëriñ suñu wasila Cheikh Mouhamadou Dieng Balla Fally suñu borom tabaaraka taala dolli ko ay yërmande dolli ko ay ngërëm te taas ci barkeem barkeem alxuraan di siyaare njabootam gépp tàmbalee ko Cheikh Mouhamadul Bassir Dieng sëriñ Saalihu Dieng Cheikh Mouhamadul Moustapha Bassirou Dieng jëwlin ak sëriñ Xaadim ak mboolem njaboot gi ñëpp ñu di leen nuyu di leen ziyaara di di mboolem jabaru suñu wàllu fàll gépp ak sopp yëpp ak dëkkandoo yëpp mm-hmm. kon xam naa ñu taxawlu fa bàyyi suñ Moodu mu jokkale nu yóbbi ba ci kanam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mm-hmm. macha allah suñu Abdoulahi Thiaw am na solo lool te matale na kon suñ Moodu si la bismillah kàddu nuyoo yi xamdan wa shukran lil jasili ni'mati waahidil qahaar mm-hmm. wasalaatu wasalaamu ala man juuduhu yuxdil matar mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaar te di leen jaajëfal di jiital ci nuyoo beeg ziyaar bi Cheikh Mouhamadul Mourtada xalifab Sëriñ Balla di ko ñaanal suñ borom bi yàggal ko te may ko wér sunu borom bi kàttanal ko ba li mu yéenee liggéeyal Cheikh Balla Faal yéene ko liggéeyal Cheikhul Xaddim mu jëfe ko ni ko bëggee te lépp ñu ànd ko moom ñaan yàlla sàmm ko te ko te wéral ko te wéralal ko ñi ko wër di hmm. barkat Cheikh al hmm. di siyaare bu baax a baax njabootam gi nekk ci jotaay bi hmm. buñ ko tàmbalee que seen mag sëriñ Balla ak mboolem sëti sëriñ Balla yi waaye ci ñi ci jotaay bi sëriñ Habibullahi Baye Seyfu ibnu sëriñ Abdou Fat Dieng ak sëriñ Cheikh Abdou Dieng ibnu sëriñ Abdou Fat Dieng ak Cheikh Mouhamadoul Amine ibnu Cheikh Mouhamadoul Mourtada ñu ngi jaar la nuyoo bi ci ñoom ñu tàllale ko ci mboolem ñu nu bokkal Serigne Balla Fally góor ak jigéen mag ak ndaw. Mm. di jaajëfal Serigne fàllu Gala Syll mm. te di ko ñaanal te di ko sant ci taxawaay bi. Mm. diggam ak kër Serigne Balla Fally lu yàgg la. ñu ngi koy jaajëfal bu baax Serigne Tamsir ñu ngi lay nuyu. te di la siyaar te di la jaajëfal. di nuyu sunu mbokkum taalibe mi nekk ci technique bi. Serigne Habibou. moom ñoo bokk Daaru Jëng mhm. ñoom itam ñi nga am mbégte ci fekk ko fii ci jotaay bi mhm. di nuyu waa fédération Serigne Balla Fally Dieng mhm. nuyoo bi bu ñu ko jaaralee ci Serigne Abdou Khadir Djili Gadiaga mi ko jiite ak Serigne Bakki Sall mi nga xam ne mooy trésorier bi danañ a jàllale ci mboolem fédération que Serigne Balla Fally Dieng jàll ci mboolem njabootu Serigne Balla Fally gi ñoo ngi jéegul bu baax jërëjëf jërëjëf Serigne ak Serigne Modou Sylla ñoo la àndal jotaay bi ñaan yàlla suñu jotaay bi bokk ci jotaay yi nga xam ne moom la ñu wax ne fu ñuy fàttalikoo waa ju baax yàlla wàcce ci ñoom yërmaane mm-hmm. kon loolu yàlla ba mu ñu mooy ci barke Cheikhul Khadim kon fi ñuy tàmbalee ci nuxta bu njëkk bi mooy euh, sëriñ Balla Fall yi boobu maanaam aw askanam maanaam fan la bokk ak gane àddinaam kon loolu mooy kàddu yu njëkk yi ñu fas yéene jox Serigne Abdoulaye sow mu ànd ak ñun ci loolu kon si Abdoulaye bismillah kan mooy Serigne Balla Fall salaatullahi wa salaamuhu ala rasulillah kon ñu fas yéene dellusiwaat ci jotaay bi ngir jéem a nab nabi kem suñu kàttan ci jëmm jooju ñu fas yéene waxtaane muy Cheikh Balla Fally Dieng mhm. mi nga xam ne ñu bare bare bari dégg nañ aw turam dégg jëfam dégg ab taxawaayam tam ci yoonu murit mhm. ci kër Cheikhul Khadim mhm. mu doon jëmm joo xam ne nag yaakaar bu buñ ci waxee tuuti rek ñu bare bari dinañ ca mën a jànge lu bare bare bari mhm. ci aw askanam ci ab taxawaayam ci ay jëfam mhm. yéen a ngi déglu Serigne Balla Fally Dieng ci wax yi gën a bari mhm. yi gën a siiw 99 francs année bi nga xam ne moom la gane jamono wax nañu mooy 1856 1856. Mhm. donte yi nag nit ñi dañu wax ni lay sa taarixu kamakaana mhm. taarix dana baaxoo di am ak jiyoo mhm. waaye li gën a bari ci nettali yi saxal na loolu muy 1856. ci dëkk bu ñuy wax njompi njompi kër Balla njompi ci Bawol la bokk mën naa ci région Diourbel la bokk soriwul Daaru Jeng lool xam naa seen diggante bu dee ëpp na juróomi kilomètre it du bari mhm. su réewuñ ay way juróom moom sëriñ Balla Fally Dieng moomu bokk ci askan wu baax wu tedd boo mhm. xam ne démb ak barki démb dañ leen xamoon ci diine ak ngor mhm. ak lislaam démb ak barki démb ci ñooñu la soqi ko way juróom di Serigne Massamba Soxna sëriñ Masamba Soxna mooy wayjuru sëriñ Balla Fally Dieng mhm. sëriñ Masamba Soxna moom yi ku ñuy wax Balla Fally Mbéri mhm. mooy wayjuram mhm. kon koo duppee maam Balla Fally Mbéri ju njëkk euh, sëriñ Balla Fally Mbéri moom yi ku ñuy wax Abdoulahi Soxna Bey mooy wayjuram Abdoulaye Soxna Biri moom ku ñuy wax Seer Anta Xuma mooy waajuram. Mhm. Seer Anta Xuma moom yi waajuram di ku ñuy wax Abdallah Buri Fall muy Abdullahi Buri mhm. Fall. Mhm. Abdallah wax yi naar la. mën naa nekk Abdallah wala Abdullah wala Abdillah. moom wax nañ ni mooy sëriñ bi njëkk ci ndogal moom lañ njëkk a miine ci sëriñ ndogal. muy Abdallah Buri Fall moom yi. Abdallah Buri Faal moom itam nga xam ne ku baax la woon mm-hmm. doonoon ku ràññiku ci niñ koy nettalee mm-hmm. di maam wala di maamaat ci euh, sëriñ Balla Faali Jeng mm-hmm. ku ñu wax méjju mooy waajuram méjju méjju moom ku ñuy wax yaas yaas ku ñuy wax max maxa ku ñuy wax waynde waynde waynde moom muy wax nañ ne moom lañ xam ci mooy ki njëkk a sant jeng hmm. ki njëkk a sant jeng ci gëstukat yi ci réew mi ci réew mi hmm. ndax seeni cosaan ay naar lañu hmm. ci wax yi gën a siiw te muy lu wér waynde moom wax nañ ne aw dëgg mooy ili ili doonoon jàmbaar lool. Hmm. yoo xam ne wax nañ li tax ñu koy wax li tax ñu wax ne moo njëkk a sant Dieng. Hmm. mooy da doon dagg. Hmm. jéngi jaam yi. ngir ak njàmbaaram. <laughs> jéng waaw jéng waaw jéng jéng jéng xam nga aw sant yàggut dëgg la mag ñi dañ doon def kenn ku nekk ci maanaam xaala mooy jikkoom ci maanaam ñu delloo ko ko Mhm. sant wu nekk boo ko toppee rek ci maanaam aw dàkkantal la ci jëfam mbaa ci jikko maanaam dàkkantal la ci jëf mbaa ci jikko mhm. la hmm. mhm. li indi jéng ji nag mooy dagg gi mu daan dagg jéngi jaam yi di libéré nit ñi ci ak njàmbaaram ci xare ya daan am booba loolu moo indi turu jéng wi jéng la macha allah <laughs> mooy maamam kon kooku ay maamam yëpp boo ko tàmbalee ci maamam yu njëkk jooju yi ba ci nga ki nga mujj nit yi ngor lañu woon démb nit yi diine lañu woon nit yi fulla ak fayda lañu woon. kon dañu doon wax dañuy delloo nit ñi ci li ñuy alxurriyatu. alxurriyatu fexe ba nit mm-hmm. Mm-hmm. waaw ci maanaam taxawaay bi mu taxawoon ci ak njàmbaaram. Mm-hmm. ak delloo nit ñi li ñu moom ak seen àq. bay delloo jaam yi ci seenu ngore. loolu mooy indi turu jéng moo indi sant wi. am na ñi moo ko njëkk a sant. loolu moo indi santu jéng wi. waaye seen cosaan. ca Fuuta mhm. walal de ñuy ñëw di ñëw ba agsi xam naa bu jotaay gënee mhm, incha allah yaatu mhm. danañ ci gën a leeral mu gën a leer tuuti incha allah macha allah sëñ Abdoulaye am na solo lool ci li ñu dégg ci sëriñ Balla Fally Dieng muy wane doon gi mu doonoon tànneef ak bokk fu baax ndax baax am na solo waaye bokk fu baax am na solo donte nii sax duñ ko natt dañ koy natt ci jëfi boppam mm. waaye nag bokk fu baax dafa am solo ndax dañuy wax ne nji mu nji mu baax mm. lu baax rek lay génne mm. waaye nji mu wax itam melul na mu war a mel sabaan rek lay génne kon suñ baax la fayal bu ñu déggee fi mu bokk na maam joo xam ne daan fexe ba nit ñi delluwaat ci seenu seenu gore loolu am solo la mm-hmm. ndax yonent bi sallallahu alayhi fexe ba nit ñi doon ay gor loolu bokk nañu ko fi indi woon mm-hmm. façon jàmm bu ne fekk na ko fi kon ay maam ñu am solo lañ kon xam naa buñ ñëwaatee da ñuy dugal ci suñ Balla Faali lu jiit ak ñoom ci Cheikhul Xadim ci aw dundi ci aw dundindam nekkoon balaa loolu lañ jox sëñ Modou mu indi ñu lu muy sos ci li si Ibrahima mi indi ci kàddu yu am solo yi waa kay jërëjëf sëriñ Tamsir hmm. xanaa di ko sant rek te di ko ñaanal hmm. wax dëgg yàlla tamhid bi ni mu ubbee nii wax dëgg yàlla. Mm. ak euh, ni mu indee nasabu Serigne Balla. Mm. lu am solo la. Mm. noonu mu ko wax ni mu limee maam yi tàmbalee ko ci maam Masamba Soxna. Mm-hmm. mi nga xam ne moo ko meññi ba ca wende moomu ak lim ci indi ci ak leeral. Mm-hmm. ak njàngale mu yaatu moo xam ne sama classe gi danañ ko dolli ko. Mm-hmm. ñu ngi ko ciy sant bu baax a baax. waaye noonu mu waxee xam naa noonu la indee way jur bu jigéen ba. moom itam mooy soxna xujja aram silla soxna xujja aram silla ku ñuy wax Madiama Anta Daara moo ko moo ko moo ko meññi li nga xam ne moom la doon wax léegi nii Cheikh Mouhamadul Mourtada Dieng ñii ko fi nekkal yàlla na fi yàgg te wér hmm. am na ku ñuy wax alaaji Abdou Mbodj doonoon ci mag yi kër gi sëriñ doo ko yar moo ko tërbiya moo ko jàngal moo def lépp lu ñuy def ci moom yàlla yàlla yokk ay leeram bi muy woy Cheikh Mouhamadul Mourtada mii dafa résumé lii sëriñ Abdou Thiaw andi hmm. da ko wax ne ko antal karimu mukarramun wa mu'azzam hmm. ana daifun may ma tey ci sa mbóoti baay hmm. def naa la tey ab sang def naa la ab xarit lan bokk nag moo jiitu loola la lépp waay moor abdu kumba jur sa maam te falaasatoo ñoo bokk maam foofee bu wér ak ay nijaay dellooti bokkaat njompi kër laay soxna béy mm. mooy li mu la waxoon léegi Abdoulaye soxna béy bi mu la waxoon mm. moo tax mu ne dellooti bokkaat njompi mm. laay soxna béy jur sa maam te falaasatoo neel waa jàllal ñaxal laaj kër majamaak ay sëtam may sët ci moom ngay sët ci moom ci sa wàllu baay moo jur xujja xujja jur sa baay ak ay rakkam moo jur ma paate ma jur sama yaayi baay te waxaale naa tey waa ndogal ak waa ñaxal mm. nañu bokke lépp ci wàllu ndey ak wàllu baay mm. te loolu day concerné ku sëñ Balla jur da dina wayu sëñ Moussa ko moom mm. waaye mboolem njabootu sëriñ Balla dañuy dugg ci loolu sëriñ Moussa Ka bi mu martial sëriñ sëriñ sëriñ Balla Fally tey wane cosaan li daf ko wax ne ko Serigne Ñaxa lay cosaanal wàllu maamam. Hmm. Serigne Madiamab ni Anta kilee Kamaali. Hmm. kilee yax te baaxi cosaan te am jom. Hmm. te reggoon démb tey soog a ñëw bi Mali. kilee jàmbaar te boole ca fulla ak way te dëri si te boole ca kan su rafet jëf saf xorom bari bayra eskay. mu xayya ak shamsin lil jamaali. te yéem naa taar ba yéem naa tab ga dëhra. te yéem naa xëy ga yéem naa balla faali. maam soxna xujja wallaay maam soxna xujja arama am ndam selang lu na mbaam nde wàcce na balla faali mm-hmm. wallaay maam soxna caq ba yaa ko rango ndogal di per diggal ba di balla faali walaay maam xujja am ngab xëj ji santal xabibullahi balla bisin nawaali kon loolu la sëriñ Moussa Ka indi woon ci aw askanam mm-hmm. ànd ak lii góor gu baax googu alaaji Abdou Mbodj indi mm-hmm. kon loolu mooy résumé rek waxi sëriñ Abdoulaye Tawti dina ngeen jëf kàddu yi am euh, dëgg yàlla muy wolofal yi nga indi nii si Moussa wax dëgg yàlla suñ xol seet na ci bu baax a baax xam naa bu ñëwaatee dana gën a yaatu incha allah ñu ngi la ci bàyyi xel bu baax a baax. sëñ euh, Abdoulaye mel na ni suñ Balla Fall yi am na ci lu nekkoon lu jiitu sëriñ bi ndax mil mille huit cent cinquante six kon day mel ni sëñ bi ñetti at la koy jiitoo wala ñaar ci leen ko mën a waxe waaye day mel ni kon bëgg nañoo gën a xam suñ Balla Fall yi lu jiitu sëriñ Tuubaa ci wàllu fu mu jaar ci wàllu jàng. ak ci wàllu xam-xam ab ab moom ci boppam loolu bëgg nañ koo xam bu baax a baax wala ñu dugg nag ci jëmmi bis bu tedd boobu bi ñëwoon ci moom. Mhm. alhamdulilah jaajëfalaat baax sëriñ Modou ci kàddu yu am solo yooyu. Mhm. nga xam ne liñ leen wax lépp ci aw askanam. Mhm. bii di wax léegi te sëñ Moussa Ka wax ko. tënk na lépp muy kii lay jàmbaar te baaxi cosaan te am jom. tere gon démb tey soog a ñëw bi maa di ñu cosaan yi ne wax léegi hmm. te ki ko wax du koy waxantu hmm. euh, sëriñ Balla Faali radiyallahu anhu hmm. la jiitu muy ñëw ci Cheikhul Xadim ndax li alxuraan di wax ni gàncax gu baax wala suuf su baax du génne lu dul gàncax gu baax waaye kon li muy tekki mooy ku askanoo ci maam yu baax. Mhm. ci maanaam bu baaxee du jaaxal kenn. Mhm. waaw mën na mën na tekkiwul na ni ku askanoo ci maam yu baax rek dangay baax. Mhm. waaye nag moom boo askanoo ci maam yu baax. bu baaxee mbaax gi du jaaxal kenn. du bett kenn waaw du bett ndax wax nañ ne ci la jiitu muy dem ci Sëriñ Tuubaa xaafisul Quraan la doon. ku mokkal alxuraan te wattu woon ko. boroomu xam-xam la doonoon. muy aalim. Mm-hmm. bu am xam-xam bu wér mm-hmm. di aalim di xaafis mm-hmm. ci lu wér doonoon kilifa it ci ndogal ndogal gam nekkoon di dëkku waajuram doonoon fa kilifa mbooloo nekkoon ci ginnaawam mu jëkkoon àddina yoroon itam ak njaboot samp kër yori soxna yori soxna samp kër ànd ak loolu lépp nag da ko wan ginnaaw dem dëkk ma li Sëriñ Tuubaa mhm. xaafis la woon aalim la woon mhm. kilifa la woon boroom barke la woon dencoon na ay soxna waaye ak njaboot waaye ñun ñëpp dalee na muñ mhm. muñ am newet ngir liggéeyal Sëriñ Tuubaa uhuh. kon loolu rek doon na ci maanaam wàccuwaay ci pas-pas. waaw ci it tëju waaw mu ngoog ko ci maanaam loolee borom Ibnu Duray di doon wax ci bi muy tagg al abbasiyuun ci seeni melo mhm. eh, sama xel day dem ci sëñ Balla ci maanaam yitte ji mhm. yitte ji ak pas-pas bi mhm. ci lu mel noonu daa waxoon ne zaaka allazi ma zaala yasmu lil ula bi fi'lihi hatta hatta ala maanaam mooy koo xam ne bi mu jógee rek nee ba rek di jëf jëf ju baax joo xam ne moo koy yëkkati. Mhm. muy jóge ci suuf di gën a jëm kaw. Mhm. te du leen mukk di yëkkati ko ngir jëfam. Mhm. ba sax ak kawe bu ñu ñëwoon noonu la ne la ñu mel ne day mel daane ci kawam ngir pas-pasam. wa suhdihi wa juudihi la yartaqa maanaam man a doo laay abbaat maanaam bàyyi bu fekkoon ne ki maanaam ak sidq muy dëggu ak ci maanaam li ñuy wax mahabba muy mahabbatu seyqi mhm. ak ak wan ginnaaw àddina ndax li ñuy wax lépp àddina la mhm. wan loolu lépp ginnaaw boole mhm. boobu ak tabi gu rëy boo xam ne ci kanam danañ ci ñëw su fekkoon ni yooyu dana tax nit ki mën a dox ci kaw asamaan si kon ñu ne sëñ baal dana ci dox yaa ngi dégg kon moom ku yàlla mayoon himma la ak yitte ci tax mu wan loolu lépp ginnaaw faxas ko dëgmal Seexul Xadiim dëgg la ab taxawaay mi ci Sëñ Tuubaa wax nañ ne Daaru jébbaloo. Hmm. tarbiya woo Touba. Hmm. ci diir bi tolloog ñetti at. Hmm. ci sëriñ bi yéwi ko ci ama wasasin. du sori 1888 wala 1889. diggante boobu itam ay jaarwaay yu bare bari jaar na fi. yoo xam ne dañuy wax makkaanahu ci maanaam wàccuwaayam ci sëriñ Touba. day mel ni kon moom Touba la wàcce. Touba Touba la wàcce. wasasin waaw. wàccuwaayam mooy. yëpp li ëpp solo ci yoonu murit nga xam ne boo doon taarixal yoonu murit mhm. faw nga tudd ko mhm. loo ca tudd rek sa xel dana dem suñ bala far yi nga mën caa teg sa fu mu fi jaar rek suñ mhm. ci wax nga tàmbale ko ci xaside yi wala jumaa ji wala màggal gi wala njaareem fu mu ci mën a doon rek mën nga caa tudd ci maanaam lëggéeyub suñ bala far yi wala ak jëflanteem ak suñ Tuubaa ak pas-pas bu mu wane. Mm-hmm. ci diggante boobu. Mm-hmm. Mm-hmm. bu dee xaside yi jaalibatul maraaxib. wa kaana xaqan. loolu mën naa cee def tuuti ab gàttal bu fekkee dana ci mën a duggaale. waaw. ndawam li mu woon gànnaar. joxoon koy addiya yóbbu ko. bu fekkee juuma sëñ Ibra. njënd la. wajuru bàyyi mu jóbbe jeng ba muy ñëwaat Sëñ Tuubaa da koo jox ab jaalibatul maraaxib ku mbàjj mm-hmm. boole ci ay kàddu mm-hmm. yoo xam ne xëy na du lépp la mel a wax ci ab jotaay mm-hmm. jotaay yi deme nii waaye bokk na ci la mu ko wax mooy li tàmbalee fii ba kër ngay àgg barab armeel yoo fi romb bu ñu fi doon bëggal ab néew des na ko jéggal ba waxtu wi dellusiwaat li fekk mel na yow jaaratu fa <laughs> bu dee xasiid ak wakaara xaqan mhm. noonu mhm. moom it mu am ay yëf yu bare bari yu ci laxasu yoo mhm. xam ne jotaay bi yaakaar naa du ko laaj dëgg la bu dee jumaa ji sëñ bi moom mokkal na bi loolu da koy faral di wax lu bare bari sëñ Musaa Ka moom moo ko nettali boppam te moo njëkk a bay fa bépp nga fa bayti sunu ba nga mbay dem ëllëg ba la yóbbu waaye bu dee njaareem a jumaa yi njaareem ab liggéeyam moom sëñ Balla Fally Dieng sëñ Mandoumbe sëñ Issa Dieng ràññi ko lool Mhm. sëriñ Moussa Ka taarixal na ko ci ba jumaa ji àggee seex ya booloo ngi mhm. jébbal ceeb yi suñ Tuubaa da koo joxaat suñ Balla Fally mhm. bi suñ Tuubaa ñëwee njaareem wax ne kër gu mag mënta ñàkk mag nañ ne kër suñ Balla suñ Tuubaa ko rëddal ak kër soxna Fat ja am na yeneen kër mu ne taalibe yi ku faay waay ku a dëkk na waaye yooyu moom suñ Tuubaa moo ko rëddal boppam daa ne kër gu mag mënta ñàkk mag def sëñ Balla muy magum kër ga. Mm-hmm. diir ba mu fa nekk itam xëy na sëñ bi dana ci ñëw kenn doon def ak waa daare kaamil yi leen dundal. Mm-hmm. ak yi leen ak yi aju. Mm-hmm. kon loolu rek doy na ci am misaal bala ñu àgg ci màggal ci jaar-jaar yi nga xam ne jaar ko sëñ Tuubaa. ak yeneen yoo xam ne xëy na bu ñëwaatee. <laughs> dinañ ko a ñëwaat kon yooyu nan nga ci jàngate comme wàccuwaayam. toog ci sëñ Abdoulaye am na solo lool te itam waxtaan yi. waxtaanu tegu tegu ci aw yoon la ndax ñiy wax xam na ne nuy wax te itam ay borom xam-xam lañu wax dëgg yàlla kon am nañ xool bu sedd lool ci jotaay bi wala ñu dégg siñ suñu Balla Fally kon mi ngi bokk njëkk jébbalu sëñ Tuubaa ndax Daaru ndax sëñ Tuubaa Mbàkke Kajoor Mbàkke Bawol Daaru diggante diggante boobu yàggut ñaari at ñetti mi ngi bokk ci njëkk ànd ak sëñ bi waaye tam Daaru Salaam Touba. kon su jé jébbaloo Daaru Salaam wàccee tubaa kon amoon na itte. te dem gëmoon na itam la mu nekkoon. ndax suñ Touba moom yaral xafaaya danaa xam ne li ci xol yi di ko gis. nit moom nit yàlla ñoom xam nañ ñi ñi dëggu. ak ñiy tendeefal. kon suñ Balla moom bokkoon na ñi nga xam ne dañoo dëggu woon. ci ànd ak sëñ Touba. kon ñuy delluwaat di siyaare baax a baax ak njabootam. ci njiital Serigne Mourtada Dieng waaye itam ne ci xasida yi ndax jaalibatu liggéey bu nangu la. Mm-hmm. parce suñ tubaab bindee sànne ko ci géej gi di rëy jasuli yi. Mm-hmm. ne bu dellusee ci man ma xam ne nangu na. Mm-hmm. ba mu toogee ba naagu ab sàndarma moo ko ñëw jox ko bu tudd Moussa. mu Moussa ko waxee mu xam ne nangu na. kon loolu lu am solo la wakaanaa xam itam xasida gànnaar. tax suñ tubaab bind ko ci ay tolof tolof yu waa gànnaar nekkoon mu bindal leen ko. ñu mucc ca loola. kon amoon na ab cër ci xasida yi. te suñ tubaab li d dénkaane woon ci la bokk. sama jumaa sama xes yi ak sama doom yi mm-hmm. sama doom yi mm-hmm. kon amoon na cër lu jiitu bis bu tedd bii di ñëw mm-hmm. kon jàmbaar kon danañ ci gën a ñëw incha allah balaa ñu dugg ci wàllu nu màggal gi ñëwee ci moom dañuy jox sëñ Modou Sylla mu xaw ñoo am lu ñu euh, ñàmbaasal ci li sëñ Abdoulaye nekkoon ñu doogu ñu ci jëmmi màggal gi incha allah jërëjëf sëriñ Tamsir jërëjëf sëriñ Abdoulaye xam naa li ma la waxoon rek moom. moom dama koy dama koy commenter rek waaye moom am na solo moom mooy def mooy def wax sami am solo lool. waaye sëriñ Balla. Mhm. mat gi ko yàlla dimbalewul woon mooy mooy taxawaay bii la sëriñ Abdoulaye wax mu taxaw ko ci wetu sëriñ Tuubaa. Mhm. nga xam ne bi mu jaayantee Daaru Salaam. Mhm. tàmbalib liggéeyam ba ci tuuba ab liggéeyam dëkku. waaye bi sëriñ bi bi ko sëriñ bi gërëmee ba mu delluwaat. Mm-hmm. noonu la wéyee la ab liggéeyam loolu la wéyee la ab liggéeyam. ci mm-hmm. sëriñ bi ak ku ko fi nekkal. mustawàcc mustawàcc bi sëriñ bi nekkee ci liggéeyu. Mm-hmm. xaymatu baariya dem na ba ci sëriñ Daam Abdourahman mi nga xam ne moom la dénkoon ndaw ñeeg daara. ab taxawaayam bi mu amoon xam nga ko. maanaam lu mas di liggéeyal sëñ tubaa sëñ Balla dugal la ci loxoom. egg na ci gërëm ko ci loola ak sant ko ci ab taawam bi bi ko jëkk a wutu doonte du taawam ndax am nañu ko mag mm-hmm. ñu dem mm-hmm. waaye ki ko njëkk a wutu muy sëñ Abdou Dieng Balla Fally mm-hmm. moom la ko tuddee sëñ daam te relation ba weesuwut nekk du nekk ci ndigal sëñ Tuubaa mu di ko ca jàppale kon moo tax man la kon jàppale ku ku nekk ci liggéey sëñ Tuubaa bi waaye noonu it la nekke woon ci gox bu naqaree nekk muy ndogal ndogal jëng nga xam ne dama ciy jéggulu sama sang sant Dieng. Mm-hmm. damay toog eh, gaa yi ma bokkal daayira bi dama leen di laaj. Mm-hmm. maanaam ndogal ni mu mel. Mm-hmm. Eh, man sama problème mooy mosuñu Balla Fall defoon ba yilif ndogal. ndax ndax ndax doy waar gu gu ndogal doy waar. waaye bu la sëñ Moussa Ka nettalee. ni sëñ Balla nekkee woon ndogal. dafa wax ne ku xiif mu yafal. ku rafle mu wadd ngay wéy. ku lepp mu lebal. ku ñaan si mu may la maali. lu war mu dogal ku ñëw mu defar nga am kër ku sew mu réyal ku lottu ne balla mhm. ku mas di labat fa njompi gu mag balaa jël mu may la jëlal la ku weddi nga laaj rijaali mhm. di fat miskin ya boole jirim ya nàmpal di may daif ya jooy leen balla mhm. di dencal dooni jiit la ya dooni baayo di leen ko canal di leen seetal newaali di leen mayi fas di leen mayi kër fa jurbel ku weddi na laaj sëriñ jëng balla xabibullahi lii la saxal ci duniyaa ci réew mi ndogal ba réew ma ne nan ko faale mm-hmm. mu tarxiya gor ya mm-hmm. tërbiya jaam ya dikkoon mm-hmm. yafal way loof ya loofoon fil misaali di dimbale moslukat ya di sàkk ay kër di gas ay teen di gor ay tool ne ali woyof te sawar gore gore foon bokkam di dem ngénte ka fekkew xew di jaale amut ay wor te moo gën a wér ci duniyaa lu te foon waxam ba mel ni ki kamaali melokaan wi la amee woon ak waa Ndawal. loola daal mujj ba ñëpp wëlbatiku. Mm-hmm. jox ko bopp. ñu demee ba fekk na ak xatar melokaanu waaw ah, kay ak xatar sax doon na am. Mm-hmm. waaye duñ jëflanteeg ñoom nii diir bu gàtt. Mm-hmm. dañ koo woon ne ko léegi loo bëgg. mu ne leen benn benn bëgg-bëgg la am. suuf su yaatu suma liggéey la sama sang ba képp laa bëgg. ñu jox ko lu mu bëgg ci suuf. fekk na Daaru Jëng moom sëñ Tuubaa ko jox ndigal mu sanc ko waaye bi mu ko sancee it ni la waxe wax na la maam yi ko jiitu xam nga am na ñu ko fa mag te cosaan li dondante la loolu waaye waaye loolu fi mu toll nii bu bu bu léeg-léeg sëñ wax sax sëñ Tuubaa ay mbiram day xaw a dafa xaw a dafa xaw a yéeme loolu ndax mm, gis nga gis nga ñooñu ko doon xatal mm. dafa mel ne dafa mudd sax ca moomale at la mag nga di faatu fawran mm. mu doon njaboot ya boole ca mbóot ya yaale ña di noonam di soppi koy xaritam ñu rëy ña di doom ñu sew ña di raam di yaale mm. nattoom na mes natoom ba na mes mbigam na jalañ mu def buur mag ak ndaw ñëpp naan Cheikh Balla Fally mm. bi melokaan wii lii la ko mujj fayal mm. faye nga xam ne daa mujj fara sax bi mu dee ba nga xam ne ku magut ci askan wi doo yaatu genn yaatu gi doon a wan na leen jikko ju rafet bañ may ko yaatal ko daa mujj yàlla def tawfeex yi ñi ko mag tegaloo ca moomale at la mag ñi di faatu fawran mm-hmm. mu doon njaboot ko boole ci suuf si yaani kon kon taxawaay boobu la amoon ci mm-hmm. diggante ndogal moom la amoon ci seexul tabarkalla xanaa loolu mooy makaarimal axlaaq mm-hmm. mooy waxoon di jox ku la ku lay xañ ak di jéggal ku lay ku lay ba ku lay ku lay ku tooñ tey jox ku lay dog noonu ko àndees ba waxee te dama sëñ bi waaye la loolu la jàngale ndax am na fu mu bind ne mbind mi ki ko bind li tàmbalee fii ba ba àddina di tukki hmm. mi ngi wax ne képp ku ko mas tooñ képp ku mas a na la hmm. moom Sëñ Tuubaa hmm. kon loolu day wane ne royoon na Sëñ Tuubaa ci di jéggale ak yaatal waaw noonu lañ meloon waaw te itam loolu defaru Sëñ Tuubaa la nañ ne am na kenn ci mag ko sëñ ay nit dogale moom ba gaañ ko ci baaraam Mhm. xaw nañ koo dagg. Mhm. ñooy sëñ bi laaj ko lu dee nga jëfle xanaa yoroo nga naay mën a ah ankay ma ko lu dee nga jëfle moom la damaa mbiru. waaw <laughs> mbiru. xam hmm. ñu ne sëñ bi moom léegi rek la. Mhm. mag ñi noonu lañ ñoom dañoo dañoo fa yentoo la. daaw ñu fa yentoo te déggoon sëñ Tuubaa lool nag. Hmm. sëñ Fallou si. sëtu si Malick Basine si la. mu ngi hmm. rek mu ne ma sëñ Abdou Karim Dieng Balla Fall yi. sëñ Malick Basine si mi ngi ko joxoon. bi mu jàngee ba ba bay dem dana ko boo demee neen sa bàyyi suñ bàll faal yi bum bum dala ci genn gan. ci genn gan. genn gan nee si Abdou Karim xamul li ko suñu Malick Basin wax ba mu ñëwee mu ne ko man de suñu Malick lu ma jaaxal nee na bul dala genn gan mu ne mu ne ko li la li la Abdou kii wax dane la lépp lu dul Sëñ Tuubaa bu ma ko xoolati bu ma ko lijjanteeti. Mm. <laughs> lépp lu sëñ Tuubaa bu ma ko xool bu ma ko lijjanti kon ñoom déggoon nañ sëñ Tuubaa lool ah, dëgg la dëgg la euh, bis bu tedd bi nga xam ne moo waral lépp mooy xarat yow ma sabt saamil na asar li xidmatil muxtaari fii saari safar mooy liggéey bu tedd bi sëñ Tuubaa liggéey li mun boroomam subhaanahu wa te ñett taxoon koo génn muy dara ji màgg ci yàlla ak liggéey li yontu ak ram waxeetam muy liggéey boo xam ne kenn dootu liggéey liggéey bu ni mel. Mm-hmm. ba ilaa yomi diini. Mm-hmm. nga xam ne borom defoon na ki loo xam ne. mosu mm-hmm. koo defal kenn ku yàlla bind. te dootu ko defal kenn. nga xam ne at mu jotaa bu bés boobu ñëwee. muy sindu am nattu. ba bés ca njaareem suñu boobu ne ko nattu bi jeex na ak pay moo ci des. mu woote baatub sukkur. muy na ma santale yàlla. mu na maa lottu ci sant ko tax ma woo leen ngir ngeen santale ma ko. kon bëgg ñëpp jariñu moo tax mu ne ñoo leen santale ma yàlla waaye cant googu am na fu ko sëñ Tuubaa jaarale ngir mu siiw ci nit ñi ñu ciy tudd suñu Balla Fally loolu bëggoon nañ ci ak lafal ci jëmmi su màggal gi nu mu ñëwee ci suñu Balla Fally jëng keroog ci njaareem jërëjëf sëñ Tamsir Guèye mhm. jërëjëf Cheikh Mouhamadou Silla mhm. ak mboolem ñi seetaan ñëpp ak a déglu mhm. mu mel ne màggal moom mu yowmu taxzim mhm. comme ni nga ko waxee léegi rek bokk na it ba tey li lay jàngal sëñ Balla Fall yi lay jàngal pas-pasam mhm. ak pastéefam mhm. ak fullaam ak njàmbaaram ak yitteem maanaam dénk gi ko sëñ Tuubaa dénk màggal ci maanaam nit ki li ko gën a yitteel kum ko dénk rek kooku yitteel na ko waaye kooku it ku am pas-pas la Mm-hmm. am na loo xam ne deesu ko dénk bi yàlla. dëgg la. Mm-hmm. nit ki lim gën a bëgg. Mm-hmm. ba jaral ko mu woote ko. di ko defal boppam. dem ba yëg ne. boppam doyu ko ci waaye nit ñi dañ ko cee war a jàppale. ku mu ko sant ne la soññal ma ko. nekkal ma ci. kooku mënees naa jàngi ci moom lu bari. dëgg la kon suñ tubaab bu jëlee màggal. jox suñ bàll fay ndigalul waxal ma ko fere yi. loolu mënees na ci jàngi lu bari. te loolu di ak cant comme ni nga ko waxee léegi. Mm-hmm. te sant day baat bu gàtt ci boo koy wax. waaye daal làmboo lu bëree la in shakartum. la azidannakum. suñ borom waxaat ci alxuraan maa yafalu llahu bi azabikum. Mm-hmm. in shakartum. Mm-hmm. wa amantum. wa kaana allahu shakiran alima. yàlla ci boppam ma warul li léegi yéen a ngi may sant. wala ngeen di ma gëm. du wàcc mbugal mukk seen kaw. kon cant gi ñuy sant yàlla di ko sant li sëriñ bi yàlla mhm. cant googu baraana lu muy fekkal waxuma sax Sénégal waaye baraana lu muy fekkal addina bi mhm. ci ay musiba mhm. ndax yàlla moo ne maa yafalullahu bi azabikum a ngi koy sant ak li feeg yéen a koy gëm màggal sëriñ Balla Fally Dieng wax nañ ne Cheikhul Khadim daa wax sëriñ mat jaw faxa hmm. nettali boobu nettali bu siiw la mën nañ ne ñiy nettali ñëpp moom la ñuy nettali donte am na ñuy wax sëñ Cheikh Fall xatlaa ba hmm. waaye loolu itam mën naa am hmm. ndigal li doon benn dellusiwaat waaye sëñ mat jaw faxa moom sëñ Tuubaa yónni na ko ci sëriñ Balla Faali woolu ko ne ko bis bii comme ni nga ko waxee léegi. Mm-hmm. suñ borom da ko ci daan teg ay natt. Mm-hmm. waaye suñ borom tabaaraka taala xamal na ko ne natt yi jeex na. Mm-hmm. xéewal ak mbégte moo ciy toppati. te cant gi mu ciy sant boroomam. bëgg na ñëpp fekk ko ci. mu jox ko ndigalul nag suñ bala fari jàllaleel ko ndigalam ndigal loolu yi ci mboolem fere yi. wax nañ suñ ma jox faxat bi mu ko waxee suñ bala fari daa wadul ko ne ko nag moo ko wax. mu ne ko yow la sëñ bi yónni mu ne ko sëñ bi damaa wax nga wax ko fere yi te man ci fere yi laa bokk mm. <laughs> ci fere yi laa bokk beneen ba it man dégg naa ko sëñ Modou Dieng Balla Fally mm-hmm. ba mu ne it am na boo xam ne nee na moom sëñ Cheikh Fall xataa ba moo ko nettali mm-hmm. bàyyi Cheikh Fall mm-hmm. nee na am na boo xam ne sëñ Jubaa moo fëgg permis sëñ Cheikh Fall wuyu mu ne ana kooku mu ne mën a Cheikh Fall mu ne ko wool ma sa baay Balla ba mu ñëwee mu joxaat ko ndigal lool yi loolu di ba tey suñu nett na ko kon ñaar nett yooyu mën naa am ndigal li mm. daa ñëw ca kee bu mm. ñëwaat muy mm. wootewaat yam ci kee waaw lu mu ci mën a doon rek bu ci nekk moom suñ tubaab yónnee na ca ndaw mu mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. wax mille neuf cent vingt deux vingt cinq vingt six suñ bi jóge fi nga xam ne da ko daan def gàtt ba mu ca njëkk a lottal di gàtt bu mag. Mm-hmm. doomi bàjjenam la ko tuddee wala doomi nijaayam suñ mut jigal. diiru li suñ tubaab di nekk noonu la ci taxawe woon. Mm-hmm. ak seex si. Mm-hmm. waaye mu mel ne it daa mel ni ñu ko doon def ñëpp daal dañ ko doon jàppale. ndax ndigal li mu amoon ci suñ tubaab ngir jot li ko ñëpp. te wut moom da da caa defoon pas pas ak pasifam boo xam daa jàppoon ne. léppam ci la nekk. wax nañu bi suñ tubaay jógee am nañ diir boo xam ne daanaka dañoo mujjandi wax màggalu Balla Xaali gi mm-hmm. nga xam ne bu doon luñ jàpp ñu bari bàyyi nañ mm-hmm. waaye mooy te des di di di dem di dem di dem mu jot muy mm-hmm. jiital ay téeméeri téeméeri gàtt <laughs> ba ni mu fi jógee ndax fonk ndigal fi jógee ab xalifaam njëkk wuutu nekk ca loola di ay ay téeméeri téeméeri gàtt ba ni fi jógee 88. Cheikh Abdoul Karim Dieng Balla Fari. Mm-hmm. nekk ca loola ba ni fi jógee. Mm-hmm. muy yokk. Mm-hmm. ba Cheikh Mouhamadou Dieng Balla Fari nekk ca loola muy yokk. ba ci Cheikh Mouhamadou Mourtada Dieng mii fi nekk. musta dakk booba ba léegi musta dakk at mu jot. ci sëñ Balla ba ci ki ko ñu wut ba ci fi nii. ba suñ joonee tey jii. saa bu màggal jubee. yitte jëpp màggal lay doon ak gàtti màggal mhm. ngir taxawu ndigalul sëñ Tuubaa la mhm. ngir taxawu mhm. ci maanaam ndigalul sëñ Balla Fally ak yitte yam ko joxoon ak pas-pas ba mu ko joxoon sëñ Balla moom yitte jooju ak pas-pas boobu la amoon ci màggal waaye nag njabootam gépp ak taalibe yëpp it seen yitte jëpp mooy màggal loolu daal lañ ci jàpp xam naa sëñ Modou bu amee wala boog leneen luñ ci war a dolli ci waaw dolli ko ci moom ak màggal moom loolu lañ demee woon tubaarkaal am na solo lool te itam leer na ndax day mel sëñ Balla Fall yi moom dafa amoon ak seen ci sëñ Tuubaa mm-hmm. ndax Balla Fall yi defar naa ko loolu ñu ko sëñ Tuubaa wax mel na ni moo moo defar ñëpp nag mm-hmm. waaye demal ci Balla Fall yi defar naa ko kon moom defaru sëñ Tuubaa la woon boo xam ne ci làmmiñu sëñ Tuubaa la la bàyyi ko nee nee na mm-hmm. naa la gërëm naa suñu daal daa taxaw ne sayu socc. Mm. boobu sax mbokkam moo ko doon seeti la fa la mm. jël. sëpp aw sayam suñu tubaab ne ko xabiltu warat yitu. nangul naa la. Mm. gërëm naa la. te gërëm doon sax. Mm-hmm. tubaarkalla kon daal sëñ Balla Fally moom borom may la woon ci sëñ Tuubaa mm-hmm. te itam ñëpp nangu nañ ko ko ndax sëñ Tuubaa la kenn xamul lu mu doon ndax ñu àndoon ak moom ku ci ne defal na loo xam ne li mu waxoon ne bu leen ma gërëm gërëm leen looy wala mu sikki sikki leen looy bi mhm. kenn ku ne ni nga ñu sa ndab tool laa lay mhm. Mhm. si Balla Fall woon na ndab lu ndab lu yaatu lool waaye nag suñu doon duy na man cee man cee jariñu suñ Moodu simple laay dugg am solo mooy ni màggal gi ñëwee ci suñ Balla yi ba suñ joon yàlla tey ak njabootam niñ ciy taxawee loolu itam bëgg nañ nga am loo ñu ci indil taxawaaye njaboot suñu Balla Fall yi ci jëmmi màggal ba suñu joon yàlla tey ak nin ci paseefoo loolu bëgg nañ nga am loo ji sara tuuti waaw di sant sëñ Abdoulaye rek ci matale gi car mm-hmm. masha Allah ñu ngi koy ñaanal suñu borom bi dëgëral ko mm-hmm. te yokk bi te may ko wér mm-hmm. euh, ni mu ko waxee rek noonu mu waxee ndigal li ci sëriñ bi xam nga Euh, liy waral léeg-léeg mbir di répété wu mooy ginnaaw ba sëriñ bi màggalut benn at màggalut ñaari at lu mu gàtt gàtt mat na juróom benn at ndax bu dee ñenn ñi wax nañ vingt et un ñi wax vingt deux mu ci mën a doon ba vingt sept mu soog fee jógee kon difu ko benn yoon te ginnaaw ba at mu jot ci yi ko fi fekk moo koy taxaw mooy doon njiit li moom suñ tuwaa kon loolu mooy tax ñaari ndaw ba ñetti ndaw sax mën naa am waaye rek eh, li ci ëpp solo te ma may bëgg ndaw ñi di ko bàyyi xel mooy lu ndaw yi bari bari ak juyoo amul ci ne sëñ Balla Fay la woo mm-hmm. ndaw yi man naa bari ba tey liñ ci dégg mooy waaw mm-hmm. réputé gi liñ ci dégg mooy pas-pas sëñ Balla Fay waaw ah, ah, góor waaw waaw ah, kay bu bu njëkkoon a yónni sëñ Mat Jaw mm-hmm. te la mu bëggoon amu ko mën naa am kon ndaw la doon ñaar waaw dëgg la waaye ndaw bu dee bu dee réputé rek li muy wane mooy pas-pasam kañ kañ kañ loo loolu it ñu ngi ciy sant sëñ Ahmadou Diaw Baxa ak waa këram. Mm-hmm. ndax loolu it luñ saxal la. Mm-hmm. sëriñ Thierno Diaw mi ko fi nekkal yàlla fi yàgg te mm-hmm. jamono sëñ Karim yi mujj màggal gu jot dana ko jox aw nag di ko wéyale loolu. te it wax nañ ne sëriñ Ahmadou Diaw ci boppam màggal gi ko fi mujj fekk rangal la na di laaj gàtt yi di reddi ba rendi juróom-ñeenti gàtt. daal di wis seen bi na us ba ko fukkeel ne us ma rendil ko Balla Fally ndax moo ma jot li woon ndigal li tamaa ko mu ci ginnaaw kon loola saxal na ne kon ñoom mm-hmm. ndigal la woon ko sëñ Balla la demoon mm-hmm. te loolu mu la wax mm-hmm. waaye waaye taxawaay boobu mu ci amoon ak farlu gi ak jàpp gi da koo bàyyi ba nim la ko waxee boo demee ci téereb sëriñ Moustapha Abdourahmane bu siiw boobu da nga ca fekk muy wax ne wasaara yu doxa bi yow mi Cheikh Balla Fally bis bi mujj na sax bisub sañ Balla Fally ni la ko sëñ Abdoulaye waxe lañ koy noonu lañ koy wooye ndax taxawaay bu ràññeeku sëñ Moussa Ka li mu ci waxoon mooy mu dellu saxal ci weeru safar di màggal bi isni Cheikh Ahmadou Bamba Wali fabuk coggal di dàq di yóbbu Touba wasaakuy ceeb waxandi di wamaali saxal na ko fukki at yu tofal juróomam deful koppar ca kalpe ba yóbbuwaale kon noonu la daan def bi fi sëñ bi mag bi jógee ni ko sëñ Moussa waxee ku nekk di jooy di xaaju tanaa nu may def. Mm-hmm. mu jébbal ruuga am di maa ngi yàlla. bi mu joxee boppam Cheikh Moustapha noonu la ànd ak moom ci màggal gi màggal gi su ma saan ñëw gàtt yi la sëñ Abdoulaye wax. Mm-hmm. su ko ma saan toppatoo ba noppi ba joxe gàtt yi lu dong di yittewoo ci daara da ko ciy boole. Mm-hmm. goj baag ak yu mel noonu. ñu di ko séddale. ngir ak fonkam màggal. ak taxawaayam bu mat. ni mu la ko waxee sëriñ Abdul Karim Dieng Balla Fally mi ñaareelu xalifaam hmm. gàttu màggal la ko joxe woon moo ko yóbbuwoon ci Ibrahima borom tër bi hmm. dafa jébal gàtt yi Cheikh Moustapha Karim ñu hmm. séddale ko mel ne xel dafa fakk sëñ Abdoulaye borom dër bi mu séddale ba noppi mel dañ ko fàtte mu gisanteeg sëñ Balla ne ko ah man de bàyyi Balla damaa jaaxle ndax yi ngay séddale ci màggal gi ñu di ko joxe dama bokkut ci waa kër sëñ Tuubaa ñi wala lu tax seetuñu ma hmm. sëriñ Balla ne ko ax ah, gay ci nga bokk waaye wolof daa wax ne hmm. koo séddale loo hmm. mu séddale nam bàyyi sa ñoñ du <laughs> baax jee bu ko doon séddale ci loxoom kenn du la njëkk am man mi it su ko yoroon di ko séddale sama loxo kenn du la njëkk am waaye nag ñu am ñëpp gàtt la jàpp ci loxoom sëñ Abdou Karim <laughs> ne ko yow nag kii laa lay jox <laughs> waaye bi mu ko ko joxee ci mat gi matoon nanguwutoon jox nit koo xam ne day doon ndaw. Hmm. mu dem muy sonn ci moom. Hmm. sëriñ Abdul Karim wax na ma ci làmmiñam nee na ma biñ ma ko joxee daldiwuñ ma koy daldiwuñ ma yóbbu. Hmm. sëriñ ban laa ko yor tàmbali ak tërbiyaam ak ak ak ak ak léppam. ndax jàngloo ko. ba ba ba ba mu sori. sëriñ Abdul Karim nee na bis biñ ko wàccee ak sëriñ Abdoulaye. daa jëlub kopp dem tool. kon xam nga ko moom moom jëm la. Mhm. ndax loolu suñu baral da ko daan bañ daan bañ jël nit di ko jox nit. Mhm. jox ko mu mu mu laddanti ko. Mhm. di ko sonn soog ko mën a jëriñ ba man dara waaw kay. sëñ Abdul Karim moom nga xam ne moom lañ joxe woon nga xam ne gàttu màgg la ko yóbbu daaru daaru Rahman fa la nekk ba am ngërëmul sëñ Abdoulaye sëñ Abdoulaye wax na ne waxoon na ko de ko li góor yàlla yëpp yanu mu diis leen Abdul Karim da koo bokk te yàqalu koy soxlaam moo nekkoon ñaareelu xalifaam wax na la ko. sëñ Abdou jëng mi ko njëkk a wutu. taxawaay boobu la ci amoon. ba nii Cheikh Mouhamadul Mourtada mi fi nekk. Euh, way yi ma la waxoon léegi. Alaaji Abdou indi na ko ci ci wayu Cheikh Mouhamadul Mourtada yi. dafa wax ne yi seex talaa ma defar bu wér sol may xikkam. magi seex Talla ma defar bu wér sol may xikkam. Mm-hmm. te defoon ma doom jum fonk lool ma defoon ko bàyyi. Mm-hmm. gannaawam it dara yàquwul mbir yaa ngi dox mm-hmm. sang baa ngi nii Abdul Karim suñu wéerukaay mm-hmm. mooy jant bi muudoo di weer mm-hmm. abdoy bi diw Cheikh Mourtada dem ceebo gaaw leen soobu moo moo mooy mooy jant bi muy sëñ la waxoon ne mooy jant bi muudoo di weer mooy sëñ Modou Dieng Balla mooy sëñ Abdou Fat Dieng booba njaboot ñoo fi nekk Cheikh Mourtada dem ceebo kon kon taxawaay boobu lañ amee màggal gi fi nii ba nii may wax yow déguisement bi ma sol maa ngi jóge ci réunion mm-hmm. générale boo xam ne fédération bi ñoo koy def mm-hmm. di soññee gàtti màggal yi mm-hmm. nañ ko baaxoo waxee nag mboolem ko yaakaar Serigne Balla Fall la ko ba nëgë ni gàtt yi ñu daan laaj rek la ñuy laaj muy ku yaakaar sëñ Balla Fall gàttu màggal lañ lay laaj waaye li tax fédération bi jóg ci leen di ko soññee mooy sama classe gii nga xam ne mënuñoo joxe ab gàtt dañoo seetlu ne ku mënta joxe ab gàtt rek da ngay di téye sa bopp ñu jóg nag bëgg ku mënta joxe gàtt loo man nga joxe ko mhm. ñoo daajale loola mhm. ren jii rek ñu euh, fii réunion bi ma jógee mhm. kër Serigne Saliou Serigne Abdou Karim yàlla fi ak téwéer euh, président fédération bi Djili Gadiaga ak Bakhsa mi trésorier bi dégg naa ñu wax ne seen budget romb na un million te ñeenti ñeenti ñeenti réunion la ñu amagul kër Baye Modou Diop jàng lañ defagun def kër Jili Gajaga ak saam bu xotul ak tay kër sëñ Saliou te nee romb nañ un kon kon loolu liñ jublu mooy bu ñu ko dajalee ba egg ca màggal ka mm. jënd ko ay gàtt nu mu toll mm. dolli ko ci gàtt yi nga xam ne njaboot gi joxe nañ ko ñu jébal ko Cheikh Mouhamadoul mm. mu jox ko Cheikh fi nekkal sëñ Tuubaa mm-hmm. kon daal taxawaay bii la njabootu Sëriñ Balla mm-hmm. am ci màggal gi di la ñaan ñëpp nag kenn ku nekk dugal ci sa loxo mm-hmm. ndax ko waxee lu gën a rëy màggal gi amut ci yoonu murit lu gën a rëy ndigalul suñ tubaa amut ci yoonu murit mhm. kon ku ci suñ tubaa jox ndigal war nga koo fonk mhm. te ñoom kat fonkoon nañ ko gépp fonke mhm. kon nag loolu daal mooy li nga xam ne moom lañu dolli ci wàllu màggal gi am na solo lool kon mbokk yi ñu bàyyi xel ñu ngi ci Assalaamy TV ak Assalaamy FM 99 point 0 ci euh, waajal màggal gi di safar 18 kàngam te ñu ànd ak njabootu sëriñ Balla Faali Jeng ànd ak sëñ Abdoulaye Thiaw ak gisam sëriñ Modou Silla waaye tam di siyaaraat bu baax njabootam gi toog sëñ Abibullahi Dieng suñu sëñ Abdoulaye ak sëñ Mouhamadou Lamine Dieng mu mel ni jotaay bi am na solo lool te itam dégg nañ fi lu bari loo xam ne mënees na koo jariñoo mu mel ni xam naa li ci waxtu wi taxu koo bari noonu waaye daañu duggaat tuuti ci sëñ sëñ Balla Fall yi bi sëñ Tuubaa jógee ci 27 bàyyi fi ak njaboot bàyyi fi ay ay digle muy jumaa ji muy màggal gi muy muy xasida yi muy lu mën a doon kon suñ waa suñ Balla Fall yi fi la ko suñ Tuubaa gannaaw suñ Tuubaa ab taxawaayam njabootu suñ Tuubaa gi ak yittee suñ Tuubaa ñu fi bàyyi woon ban taxawaay la ci amoon walla ñu ñëwaat ci àggale ci des ci màggal gi yooyu 40 40. yàgg na kon seen diggante fukki at ak ñett. Hmm. ñëw ah. waaw na fi. non hmm. hmm. si Moussa 40. loolu itam nam nekkee woon ak Seyxul Xadim. noonu la nekkewaat ak njaboot gi mu fi gi mu fi nekk loolu muy Cheikh Mamadou Moustapha. diir bi ñu fi nekk. muy at yooyu ñu wax. Hmm. fukki at yooyu ñett. Hmm. ci taxawaay taxaw taxawaay taxawaay bu bu bu bu mat sëkk. Hmm. ci diggante nit ak ub taalibeem. ci diggante nit ak way juróom. ndax ñoom dañ koo warmaaloon ba. joxoon ko ci bàyyi bàll lañ daan wax. am na ci yoo xam ne nag xëy na du laaj ab ab du jataayu télé. dëgg la <laughs> waaw <laughs> waaye nag ko na ñu yoo xam ne des na ko misaal des na ko misaal waaw. waaye li ñu mën a wax ci gàttal mooy. Mm-hmm. taxawoon na leen taxawaayu taalibe bi. Mm-hmm. ci ni taxawoon Sëñ Tuubaa ak nim ko nekkale woon. Mm-hmm. teel a nangul Sëñ Mudu lool. doon exemplaire bu mag a mag. ci aw dox yenam Sëñ Mudu Mustafaa ak ni mu ko toppe ak ni ko nangule woon. ak ko déggale woon. mooy exemplaire la ci woon. kon moom mën naa ne taxawaay bi mu taxoon ci ku baax ki ku mm-hmm. tedd ki mm-hmm. taxawaay boobu da koo yokk mm-hmm. lañ mën a wax bu nee ba mel ni jëmmam làqu na waaye ak njabootam moo fi des te suñ bu Moustapha taxaw ci maanaam mu ànd ak moom ci ñaari tànk yépp nag maanaam taxawaay bi nga xamante ni da koo waroon ci Sëñ Tuubaa mu nekkoon ca loola dara wàññi ko ca waaye taxawaay bi nga xam ne wayjur da ko war taxaw ci maanaam doom. Mm-hmm. taxawaay boobu itam dara wàññiku ci. kon moom ñaari tànk yooyu la doon doxeek moom. Mm-hmm. ci kaw ak ci suuf. Mm-hmm. te moom daanaka mën nañu ba léegi suñu waaw moom la fi nekkal. ndax 40 la fi jógee. waaye diir bi muy ànd ak moom nga xam ci fukki at ak dara lay toll. la ci nekk woon. bi mu fi jógee itam njaboot gi mu fi bàyyi itam ñoom it dàll wi wi si wi suñ soloon ak mbubb mi suñ bàyyi la soloon. ci kër suñ ci waa. akub taxawaayam wenn melo lañ ca. ndax ñoom ñëpp mën nañu jikkoom lañ yoroon aw doxinam lañ yoroon. Mhm. pas-pasam lañ yoroon. Mhm. ndax moo leen nàmpatal ci loolu. Mhm. kon moom ab taxawaayam ci njabootu suñ tubaab. noonu rek lañ ko mën a waxee ci gàttal. dëgg la waaye bi mu fi jógee itam. taawam bi mu fi bàyyi. mu nekk suñu Mouhamadou Moustapha ba ki mu fi mujj bàyyi itam. wenn doxin wi la. benn pas-pas bi la. te daara loo xam ne bàyyi woon na fi lu sooxee amut. dëgg ndax. bu dee tool bi ñuy ba yaakaar naa. Mhm. mën nañu benn tool moo ko ci yoon murit. Mhm. Mhm. ndax defe naa année boobu la lañ ko tàmbali de. 45 la 45. loolu yàgg na. 1945. ba suñu jooju tey jii. mës a jéeg. mës a jéeg kon moom lenn loo xamante nekkoon na fi ko def. ci njabarug suñ tubaab yi bi mu fi bàyyi koo dara wàññi ko ci njabar gi mu fi bàyyi gépp ci taxawaay boobu ak doxin woo ci lañ nekkoon ba suñ jooju tey ba ci Eh, Cheikh Mouhamadul Moustapha mii fi nekk tey. Mhm. benn doxin bi la benn taxawaay bi la. Mhm. comme ni ma la wax léegi am na ci loo xam ne moom du lu ñuy misaal ci ab télé wala ab rajo. waaw dëgg la dëgg la. Mm-hmm. waaye aw aw ci. ci mhm. ci ci ci ci ci ci Cheikh Mouhamadul Moustapha. benn taxawaay la woon. dëgg la mm-hmm. maanaam suñ Balla. taxawu gi mu taxawu suñ Mouhamadul Moustapha. ak nekk gi mu nekkoon ak moom. ak topp gi mu toppoon ci moom. maa nañ ne benn taxawaay la. dëgg moom kenn fekk ko ci. Mhm. kenn ko ci. Mhm. macha allah am na solo lool si Abdoulaye caw macha allah ñu ngi gën a rafetlu lu baax jotaay bi ndax li fi génn lépp dafay génn ci xam-xam ak yar ak teggin ak tegu fu leer loolu ñu ngi ciy santal yàlla bu baax a baax waaye tam mu mel ni bis bu tëdd bii rek moom mooy sunu itte. Mhm. te tamit suñu baal amoon ci cër ak ku njabootam. mu mel ni comme ni nga ko waxee yéen a ngi jóge ci ay ay réunion mooy réunion waajal waajal màggal gi xam naa loolu danañ ci danañ ci laal tuuti rek ci actuellement nii daayira bi fu mu toll ci wàccaayu màggal Tuubaa gi seen seen i addiyaak ak ni ngeen ko waajalee ngir ngir liggéeyal ko Sëñ Bàlla jox ko ci liggéey bi daal liggéey liggéeyal Sëñ ci màggal gi bëgg nañ ko ci indil tout ak soññaal itam mbokki taalibe yi ñu gën a yokk seen taxawaay bu baax baax ci liggéey Sëñ ci màggal gi ñu kër Sëñ Balla Fall waa kay jërëjëf sëriñ Tawsir jërëjëf ci li mu indi ji taxawaay bi sëriñ Balla ginnaaw Seexul Xaddim loolu sax sëriñ Abdou li ma la ci yokkal rek bala maa ñëw ci laaj bi sëñ bi mhm. mooy Cheikh Mouhamadoul Moustapha ci boppam nii nga wax nii te sëñ la nekkee woon kook moom mhm. kero 1940 bi sëñ Balla wàccee mhm. taayif la ko fekk biñ ko ko yëgalee mu joxe ndigal biñ ko indee ba waajal ko mag ñi ko waajal taxaw sëñ Balla ca gën gaamatu matu taxawin daa mm-hmm. jóge Taif ñëw bi mu ñëwee mag ñi yéemu ci lool ndax boobu Cheikh Moustapha tolluwaay bi mm-hmm. ak responsabilité bi mu yanu mm-hmm. te fekk na bi fi ku baax ki jógee ba booba gisuñu lu mel noonu ñu ne ko ah kon de xanaa buñ ko taxawoo ci ñaanal ko ba noppi da ngay joxe ñaan tawaññeeku mun a déedéet damay damay damay dem ba fañ koy jébbale boromam. Hmm. ma taxawu ko ndax lim la wax léegi. ba fil hmm. baadil maa hmm, ndax damaa taxaw woon ba mu méttee. waaw baat boobu la Cheikh Moustapha jëfandikoo damaa taxaw woon ba mu méttee. nga xam ne moo ko taxaw bañ jébbal ko borom loolu sax moo waral fii ñu ko def tey. ci barabam muy boo tolloog Cheikh Ibrahima Fall. ci sa wetu càmmoñ. boo xoolee danga nga seen barabu sëñ Balla. foofu la toll. waaye waaye barab ba mu ba ba nga xam ne moo doon barabu kër gi. ca kaxu la woon mm-hmm. waaye waaye biñ tolloo foofu ni la ah, gannaaw ba Cheikh Moustapha day dem kat nañ sooy boo ñu jàdd fii mm-hmm. xool xool xool fuñ ko fi def waaye duñ mën a tee jàll fii ndax mm-hmm. ginnaaw ba kilifa gànk yi denc bi waaw ko la damay indi firnde rek kii la ci diggam ak diggam ak Cheikh Moustapha bu joxe woon ci waaw bu dee li nga wax ci wattaay bi ak fi ñu toll mooy ni ma la ko waxee léegi rek benn yitte rek la ñam muy ni ko sëñ Balla daan defee njabootam gi daan ko defee Mm-hmm. weer wi su ma santeeru kenn ci ñoom du am jënn bëgg-bëgg amul lenn lu muy def wala lu muy xalaat lu weesu yitte ji nga xam ne mooy gën a nekk seen kanam mooy gàtti màggal yi mm-hmm. daje bañ jox ko njabootu suñ tubaab gi sëñ Modou Dieng Balla Fally saa bu ma saan ñëw màggal gi jub si ni nga ne ko ñaanal ma daan la màggal du ma ci ñaanal kenn mm-hmm. yow fexeel ba li borom bëgg nga def ko rek loolu la daan wax Cheikh Mamadou Mourtada mi moom la fi nekk boo diglu woon soññee bi mu bi bi mu soññee rek da ngay xam ne wax dëgg yàlla mi ngi bàyyi xel màggal gi mhm. bàyyi xel ndigalul sañ Tuubaa yi mhm. kon li nga xam ne moom la ñuy soññee mhm. mooy fu waay nekk gàttu màggal bi nga daan joxe ni ko sa yëpp di jëng bàlla fali sa gàttub tabaski na nga yeew sa gàttub màggal la ko daan diglee kon képp koo xam ne euh, taalibu sëñ bàlla fali nga lay soññ ci nga indi gàttub màggal boo ko fekkee nag gàttu màggal dis na ci yow ndax tolluwaayu jamono loo man nga yónnee ko ñu boole ko li ñu yor. Mhm. jënd ko ay gàtt dolli ko ci gàtt yi. Mhm. jébal ko Cheikh Modou ndax yitte jooju rek la la yem. dëgg la waaw bu dee bu dee suñu yitte la ñu laaj moom fi ñu toll. Mhm. du dara lu weesu. wut ay gàtt yu rëy te suur ni ko Baye jagal te rafet. yu rëy te suur te rafet. jox ko Cheikh Mamadou Mourtada. waaw mu jox ko Cheikh Mamadou Mountakha. macha allah loolu moom mooy yitte ji nga xam ne moo gën a taxaw. Eh, eh, suñu développé nag. soo ko waajal màggal gi. numéros yëpp yi màggale. waaye ñun dañoo amul sañ-sañu di di di waajal màggal ci suñu bopp. te waajaluñu jëm kër suñu tubaab ba noppi moo tax jënn yitte jooju rek lañ am mm-hmm. datti màggal yi mooy yittey Seex Murtada mooy yittey jëwri ñoom yëpp mm-hmm. moom la ñuy soññee moo ñu taxawoon di daje mm-hmm. fédération la ñuy soññee insha allahu taala ko fa ngir soññee rek datti màggal bu ñu noppee nag ba ba noppi nag waajal daal mooy yëf yi <laughs> waaw moom day eh, suñu daa waxoon ne kuy defal bésam moom kuy defal bisu jàmm sa bis du la jaaxal kon bis bi Sëñ Tuubaa la mm. waaye xam naa li si waxtu yu bëriwul mm. waaye fi ñu koy mujjee ci sembilaay yi gannaaw bu Sëñ mooy di tàggoo mooy Sëñ Tuubaa baat mu jël muy baatu cant mm. xam nga bari na ay ci taarix ay ñu fi jaar ñoo xam ne yàlla dafa loon leen xiwal ñu jël geneen jaamu yàlla waaye suñ tuwaa moom taamu ak sukkur muy baatub cant te cant gi nag lam moom moo nii nañ ñu koy santale yàlla ndax moo ne li tàmbalee ba ci ganaar li tàmbalee ci ganaar ba ci gëléem kon baat boobu nga xam ne baatub sukkur la te ak sukkur min axsamin ibadat ñu ngi bokk ci jaamu yàlla yi gën a kawe te dañuy wax ne al asul basri wala abdullah wala kii omar ibn abdul aziz ne woon na bokk na ci li saxal xéewal muy sant yàlla neen sant yàlla day saxal xéwal waaye liy dàq xéwal mooy wedd yàlla neen xéwal boo santee mu sax waaye boo weddee rek xéwal nga daal di daal di daal di dellu gannaaw kon baat sukk bi sëñ Tuubaa jëloon muy sant yàlla baat ba bëggoon nañ nga ñëw ñu ci tuuti rek ñu tàggowaale ko ak itam soññaali ñi war a ñëw Tuubaa ni ñu war a ñëwee ni ñu war a màggal see ndax mel na ni Tuubaa yëmu rek fenn kon kii ñëw ni mu war a ñëwee fii ci bis bi tuwaay ak ni mu war a sant suñ tuwaay borom nga duggal ñu foofu rek bu ko defee bu kii ñu mën a tàggawaale incha allah. jërëjëf sëriñ Tamsir. jërëjëf sëriñ Mouhamadou Sylla. waaw mu mel ne cant yi comme li ñu wax léegi mooy suñ borom tabaaraka wa taala. bokk na ci ay turam sax chakour. yàlla fonkal ko ba daanaka jëf yi jaam bi jëf. boo dee jàng alxuraan néewaa nga loo ciy dégg lu yàlla di xeeb lu dul sant. Mhm. sant moom yàlla day day wax ne sax li ngeen di sant daa tuuti. <laughs> xalilan. xalilan ibaadiya shakur ak mhm. i'malu ala daawuda shukran mhm. qalilun min ibaadiya shakur kon suñ na lu baax a baax ci jaamam sant. waaw ah, li ñuy sant nee na dafa tuuti. <laughs> suñ bi déglee ak cant. kon loolu lañ ci la ci la njëkk a nekk mooy. ci maanaam mm. moom ma ngay sant diggante boobu. Mm. waaye ci maanaam mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi dabul. dabul cant gi gën a bari. waaw kay gën a bari. Mm. dabul ci biir cant gi itam ngërëmu suñu borom tabaaraka wa taala. Mm-hmm. ginnaaw yàlla nee naa dañuy sant daal ndax. <laughs> Uh, wa in tauddu ni'matallahi laa tuhsuha. Mm-hmm. ci maanaam xéewali suñu borom tabaaraka wa taala yi. Mm-hmm. bu ko nit ki doon lim. mënu koo jàpp. mënu koo takk. maanaam fi ne nii nit ki bëgg a yi nooyi rek buñ ko fekkoon lu ñuy jaay la. waaw ah kenn mënu ko jënd. Mm-hmm. dëgg la gis nga rafet bëgg koo xool bu fekkoon lu ñuy jaay la kenn mënu ko jënd. Mm-hmm. bëgg a rek regg. Mm-hmm. bëgg a lekk lekk mu saf la li nga bëgg. bëgg naan naan yooyu yëpp bu fekkoon ne nit ki lenn lu ci nekk dañ koy jaay. kenn mënu ko jënd déedéet wallaahi. kon kon suñ borom moo yey ne. li ngeen di sant daa tuuti. Mm-hmm. kon suñ suñ suñ bi woote ak cant. ma ngay mm-hmm. sant lu moom di gëm ak borom. Mm-hmm. waaye ma nga ñuy sàkkul ngërëmul yàlla. ci biir cant bi. sëriñ bi nag ni mu santaanee ñu cantale ko boromam mooy. cant koo xam ne comme la ma waxante gàmm rek mooy taxzimuhu bi sunnati. waaye itam ñuy dañuy sant yàlla mooy naskuruhu bi sunnati. dañuy sant yàlla te teg ko ci sunna. mooy bernde. màggal mm-hmm. moom dañ gën a miin mooy bernde mm-hmm. bernde mm-hmm. bernde nag murit yëpp xam nañ kenn du ko jàngal am murit waaye nag bu dee ñi ñëw maanaam ñu bàyyi xel fi njëm jëm si ñu dëkku suñ tubaab bi nga xam ne da koo bëggal boppam ba mag ñi dañ laa wax ne buñ bëgg mosaa bëgg am muñam sax bu ñuy jubbanti sàkkee dañ naan na jëm Tuubaa <laughs> na jëm Tuubaa li suñu doon ñaan nag ci dëkk bi nga xam ne dama wax sax naan wàcc alhu dahaban hmm, maskana taallumi hmm. wa mawdi al fikrati hmm. bu mu bàyyi la lool kon nag ku fay ñëw sab yóbbal mooy wa tasawadu fa inna gayra saadi taqwa yóbbal yóbbal yóbbal yóbbal bu teel bi indaale ginnaaw ci maanaam sopp Sëriñ Tuubaa ndax ñii ñëw ñëpp moom ak cofee leen di indi waaye nag nañ nañ ca boole teg seeni tànk mm-hmm. ci ragal yàlla mm-hmm. mooy lépp lu sëñ bi aaye ci dëkk bi mm-hmm. ci ak col ci wax ci jëf ci aw melokaan ku ko mënta bàyyi nga bàyyi ko fa ngay jóge te booy ñëw indaale jikkoy waa Tuuba te fas yéene booy dem yóbbaale waat ko te doo tàqali koog moom macha allah ndax loolu ci la ñuy gën a amee fayu ak cant gën caa amee ngërëm suñu borom tabaraka taala ginnaaw sëñ bi ak cant la woote te war ko ci dëkkam bee mu sopp nañ yóbbaale zaadu taqwa mhm. ndax yàlla bu ñuy delluwaat mhm. bu ma mën a taqoo mu duñ tàqali koog moom macha allah jërëjëf sëñ Tamsir <laughs> jërëjëf asalaamaaleykum am na solo lool sëñ Abdoulaye Thiaw fi nga daaneel say kàddu muy melowoo melow yóbbuloo ak ragal yàlla mm-hmm. ndax loolu suñu boobu dégle woon ca ñuy dem màkk mm-hmm. di gën ci ay yóbbal du luñ lay jox mm-hmm. du sëriñ ca du la mooy taxawal la ragal yàlla kon ñu ñaan yàlla mu defal ñu ko ba ñii ñëw ak ñi fi fekk ñëpp lamboo ragal yàlla googu ndax màggal moom kii ñëw daa am lu ko war waaye ki muy fekk itam daa am lu ko war muy nekk ci li sëñ Tuubaa bëgg te mooy taasimuhu bi sunnati naa lil jannati kon loolu lu am solo la yàlla ñu ko sëñ defal ci barke bis bu tedd bi kon sëñ Modou ñu joxal la kàddu gi nga daaneel say kàddu tàggooto waale ci ci li ñu doon waxtaane muy jëmmi sëñ Balla Fall yi taxawaayam ci sëñ Tuubaa ak ci màggal gi ak itam santaale ñu ngi bëgg sant bu defee ñu mën a yëkkati jotaay bi incha allah. waa kay jërëjëf. Mm-hmm. sëriñ Tamsir Gueye mm-hmm. ñu ngi lay nuyu baax yooyu tam te di la sant te di la gërëm. Mm-hmm. ci taxawaay bi. teggin yeeg dal geeg bàyyi gi xel lépp wax di yàlla matal la yàlla yàlla defal la tawfeex di jaajëfal sëriñ bu baax ci waxtaanu matale wi. te wax di yàlla tege ci aw yoon. ni nga ko waxee rek màggal gi moom ak cant la mm-hmm. te cant ni ko sëriñ Abdoulaye waxee mm-hmm. almashar yi mi nga xam ne ndax bokk ci ñu gën a doy waar mm-hmm. daa waxoon ne fa shukruhu huwa shukrullahi xaalixina wa ashkaru naasi man li cheikh xar shakara daa waxoon ne sant suñ tubaab mooy sant yàlla sant cantaakoon bi dàq sant ci kaw suuf mooy ki dàq sant suñ tubaab kon nag màggal gi sant la nañ sant yàlla waaye sant Sëriñ Tuubaa ci xéewal gi ko yàlla defal mm-hmm. ak it nag sant ko it ci boole gi ñu ci boole mm-hmm. ndax fi mu toll cant ko amee ñun daa bari lool waaw dañ ko war a sant ci xéewal gi ko yàlla defal mm-hmm. moom ñaamatulaahi la waaye nag boole gi ñu ci boole ñu it war nañ ko ci sant kon ñu ngi ko ci doolee sant bu baax balay sax ku ñaan suñu borom bi yokk ngërëmam te doolee ay leeram ak Seexul Xadiim Euh, xam naa di jégg lu baax rek dal yi siyaare waat njabootu sëriñ Balla Fally gépp mm-hmm. Cheikh Mouhamadul Mourtada mm-hmm. ñu koy siyaar baax te di ko te di ko ko ñaanal suñu borom bi yàggal ko te wéral ko ndax taxawaay bii mu taxaw mm-hmm. mooy li ay mag ay magam taxaw woon rek ndax ni ko sëriñ Abdoulaye wax mille neuf cent quarante ak léegi euh, du ay caaxaan lu fi waay bàyyi woon te bàyyi woo fi ñu ko mate naga ni naga ni kon te 1940 la fi bàyyi ko woon la sëñ Moussa Ka naan demam nga ca amatan sa sin laa ko taarix di gaawu ca weeru tam xaritam ñu jaale ba weer wa xëyee ñu dellu fanaan ba ëllëg la góor gën a mes ila Tuuba bi ali murid yi rës rësee karanaani sakket malaaka ya teeroo ruuga bi nawaali mm-hmm. sëriñ Tuuba xaroo ko ridan fa Tuuba wa rahmatuhu wa lamp ba Ibra Faali Mm-hmm. loolu 1940 la woon. boobu ba léegi njaboot gi taxaw taxawaay bi ñu taxaw. Mm-hmm. ba dara di sut ginnaaw. Mm-hmm. lépp lu mën a doon rek taxawaay ba ci war am na. kon kii ko fi nekkal ñu ngi koy ñaanal. suñu borom bi yàggal ko lool te may ko ak wér. te wéralal ko ñi ko wër. di siyaare jëwriñam Serigne Balla Fally. moom Cheikh Mouhamadul Fadal. waaye di siyaare njabootu Serigne Modou Moustapha. muy Cheikh Modou Dieng Balla Fally. Serigne Bachirou ak Serigne Salihu. ak seen jëwriñ ji nga xam ne moo yore liggéey bi di ko doxal Cheikh Mouhamadul Moustapha suñu borom bi yàggal ko siyaari sëriñ xaarit moom itam di ko ñaanal ab taxawaayam rafet la lool ñu ngi koy ñaanal di siyaare njabootu sëriñ Abdul Karim sëriñ Saalihu ak mboolem njabootu sëriñ Abdul waaye siyaare bu baax a baax njabootu sëriñ Abdoulaye muy sëriñ Cheikh ak ay rakkam ñu bokkal sëriñ Abdoulaye bi yëpp góor ñi ak jigéen ñi ñu ngi siyaare ñëpp te di leen jaajëfal te di leen ndokkeel di soññee daal yi fi dal mooy mm-hmm. màggal gi rek suñ tam di la santaat di la gërëm di sant sëriñ Fallou mm-hmm. di ko sant bu baax sëñ Fallou Galas mm. nit ku baax ku yàgg a jëflanteeg kër gi mm. ku yàgg sëñ Abdou Karim Dieng Balla Fall daana ko bàyyi xel lu bari mm-hmm. ku yàgg a jëflanteeg kër gi doon nit koo xam ne waaw jàmbaar la di mbokkum ñëpp mm-hmm. doon ku baax te bëgg mm-hmm. sëñ Tuubaa lool doon te daa féete Daaru Salaam bëgg sëñ Tuubaa boobu dafa yaatal waaw dafa yaatal moom ko yaatal nit ku baax la te yaatal ñu koy sant bu baax dellu di siyaare waat mm. ak a ñaanalaat suñu sang su baax si teew ah. taaral jataay bi loolu wax dëgg yàlla seen mhm. teewaay bi mhm. xàmmee wuñ ko ak teewaay bi Cheikh Mamadou Mourtada wax dëgg yàlla ndax matala na lépp mhm. sëriñ Habiboulaye Ba Jéefu mhm. ak sëriñ Cheikh Abdou ak Cheikh mhm. Mamadou ñu ngi sant bu baax te di leen ñaanal te di leen gërëm di sant jëwriñ Baye Cheikh Kunta ñu koy sant bu baax te di ko gërëm ci ab taxawaayam ci sëriñ bi léppi sëriñ bi moo koy saytu te di ko lijjanti ñu koy sant bu baax di siyaare waa fédération bi ñëpp bàyyiwuñ kenn asalaamaaleykum wa aleyna wa alaa ibadillahi euh, salihin kon xam naa day mel ni euh, ñu ngi àndoon ak yéen ci émission bii ñuy wax 18 tey ñu àndoon ak waa kër Serigne Balla Fally Dieng bokkoon ci tànnee fi sëñ xam naa jotaay bi am na solo lool te itam li fi génne xam-xam la boo xam ne ñun dooli ko nañ ci ci lu bare bari des na daan baax suñu fàllu gala silla mi nga xam ne mooy mooy jëriñu di kër gi ñaan yàlla kàttanal ko ba li mu yéene liggéey sëñ Tuubaa lépp mu def ko te ànd ko taalibe sëñ Tuubaa si Muntaxa mi nga xam ne moo fi nekkal sëñ Tuubaa yàgg fi lool te wér waaye dellu ñaana sëñ Murtada Jeng mi nga xam ne xalifa bu njabootu sëñ Balla gépp moom itam mu yàgg fi lool te ànd ak wér ci barke Cheikhul Khadim ñaan yàlla jotaay bi doon jotaay yi nga xam ne euh, yërmaane ak la sëñ waxoon sëñ Balla Faali naa la te gërëm naa la yàlla nañ nañ ci barke sëñ Tuubaa kon xam naa sembla yaa jotaay bi mm-hmm. danga koy tëjaat rek ci tàggatoo ak joxal ñu kenn ci kilifa yi mu ñaan ñu mën a yewee ko asalaamaaleykum wa rahmatullah delloo santaat yàlla bu baax ci teewaay bi ñu teew fii ci suñu xam-xam bu néew ak suñu ñàkk leer kàddu macha allah macha allah di dawal ngant itam lu ciy njuumte rek tey <laughs> dawal ngant mbokk yépp lépp la <laughs> waaye am ci ak cant bu baax a baax a baax ndax mm-hmm. sëñ Balla Faye day suñ féete. Mhm. Mm. yàlla féetale noog moom. dëgg la. féetale noog ak njabootam. Mhm. te féete ga neex ñu lool. Mhm. sedd suñ xol lool. kon ab jotaayam. lu mu gudd gudd. ak lu mu gàtt gàtt rek mbégte lañ ca am. dëgg la. sant leen bu baax a baax yéen ñi nga xam ne. yéen a tax lii sont. nekk ci suñ diggante. ak suñ Fallou Galas ak suñ mbokk bi nga xam ne fekk nañ ko fi nga xam ne moom mën naa ne moom ci ñi jaar samay loxo la ah, di jiir ci am njàngam maa ko jàngal mm, jàmbaar la lool nag waaw <laughs> mm. di jiir ci am njàngam maa ko jàngal jàmbaar la jàmbaar la yàlla barkeel muy ku baax mm-hmm. euh, di siyaare suñu sëriñ si toog itam mm-hmm. tey sàkku ñu defal nu ak ñaan lu mm-hmm. mën a yiwi ko kon waaw euh, kàddu yi daal mooy kàddu yi sant ak mbégte ak ñaan yàlla bàyyi na fi bu déwénee dara bañ ñoo daal suñu lépp yokk waaw suñu lépp yokk mm-hmm. suñu baax yokk mm-hmm. suñu wërsëg yokk mm-hmm. ñu ngërëm ci Sëñ Tuubaa yokk amiin rek Sëñ Tuubaa xam naa kon dañuy asalaamaaleykum yëkk jotaay rek si moon Habib si Habibullahi Dieng kon nga def ñaan rek ñu mën a yewee ko ba jëmmi jamono ak sol xadim bismillah bismillah amiin amiin Sëñ Tuubaa اللهم امين امين يا من يروم سبيحا لشيخ احمد ci dëkk bu ñuy wax njompi ci tund wu ñuy wax ndogal ci suuf sii nag di kajoor di doomu sëriñ Masamba soxna Jeng ak ku ñuy wax soxna xujja aram silla ñaari jëmm yi nag ñoo séq